voilà gars yi nuyu di leen ziar bu baax a baax gis ngeen fi ñu nekk ni mu amal fini nii ci ties ñu daali nek ci box bi nga xamne ne box Serigne Idali mbake ñu daali taxaw ci kanam xar bi nga xamne rek mom modi Mansa Musa di dom gayne Dom gayne nak buñ ko déggé rek suñu xel daal dem ci Sénégal Sénégal Ndiaye gayne Ndiaye alors ñu daal fi fekk nga xamne nak mom mo nek diko di mudi Njaga fas wax lu am solo ci ki nga xamne rek mom modi Mansa Musa. alors Njaga lan nga ñuy wax ci Mansa Moussa yow waaw man sa Moussa nag moom doomu gaynde la yaa ji doom bison la bison canal boo ñëwee ci côté yaa ji euh, yaa ngi ci maxtum bi ak booy séeréer bi boo ñëwee ci côté côté yaa papam côté Saloum bi la quoi ay maamam moom man sa Moussa alors ñu daal gis nga ni euh, mom moo di euh, doomu bashir ak ki nga xam ne moom di euh, Maktoum. alors mom ba mu sen sen kanam la jiddo yeen yeen ko yor boobu ba léegi. non dañ ko jëndul na dañ ko jënd dañ ko jënd ben suñu ben xale bu tuddoo mbay Sall mo mo ko jaaya alors tay jii ngeen yor ko bu ba legi ñu daal gis ni nga xamni mom la tollu jéego yi nga xamni mom ngeen ci def mu daal di doon lu am solo alors lan ngeen ko bolel kan ngeen ko bolel ak ben ko booleel ko lan la leen indi. wa ñu ki la dañ ko jël tek ko ci ben doom ben benn doomu salamon Salamone nag surtout roi roi roi kii la Salamon papam dom roi kii ruas eh, roi Salom la non non roi la roi Salom wala non non roi Salom Salamon doomu roi kii la bayam dal bayam dal modi bour bi bu wa ah, bour bi waaw ah. moy dom doomu gayn doomu gayn la dal bu ko jeen ko tek ben ruas roi Salom lan ko tek doomu roi Salom seen seen maal bee mooy seen maal bi moo tudd nan moo amagul tur amagul tur nag ah amagul tur wante moom la eh, moom la moom la jot a mel et déjà xam ngeen ni eh, jëmm ji ni xëy na peut être moom mooy li nga xam moom mooy feeñ ci kële alors ana li nga xam ni moom ngeen di jot a dugal ci moom ba eh, tey jii ni amul leen li nga xam ne gën a koy tiit ni ki perte non kii de moom wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax ba ndax bi ñu ko dugalee foofu li ñu indi li moom am na na ci nag ñuy alors bërëb bi fan la nekk bergerie bi fan mooy eh, exact adresse exacte bi. ñu ne ñuy dëkk Mbour correspondant Saly waaw foofooy foofooy la bergerie bi ne. foofu rek ngeen am comme siège. waaw foofu la yàgg ngeen fa lool. tey jii ñu daal gis li ngeen xam ne moom ngeen def ci xar bi ku ko gis xam ne ay yarkat dëgg ngeen et yarkat donc moo mën a yor xar ba mu daal mel ni taar bii nii tolluwaay gii nii nii ah boo gisee keroog gi ni mel nii moom tamit mu daal di dégg daaj ba mooy loolu mel ni ki nga xam ne rek moom moo di baayam parce que gaynde gisuma ko wante xam naa ni tamit euh, lu lu lu kéemaane la woon moom. waaw wax dëgg yàlla ndax wane na loo xam ne si moom koo gis xam ne xam ne xar xar la xar la moom waaw amee na ci moom yaakaar loolu baax a baax. tey jii du ma ne bu ngeen ma ko doon may bu ngeen ma ko doon jaay man ñoom koy jaay. waaw ah, kii nag moom dama yaakaar ne dañ koy téye ko liggéeyee ko ba ci kanam kanam. Ah, ndax jot nañ leen ci laaj dara proposé nañ leen ci dara. non pour jaay gi. Mhm. waaw moom bëggees na nit ñëw na ba tooy ba taay bëgg ko nag waaye nag damaa defee dañ koy téye ba ci kàmm ak ñi koy bëgg donte yéen bëggoo leen ko jaay ay njëgu ñaata lañ leen proposé ndaxte xëy na dañ nañu baab ngir ngir am xar gi ndaxte lii ni moom képp koo gis rek da daanaka di ko bëgg yor man mii di wax ak yow sax maa ngi maa waajal waxaale ak yow non fii ay xam nga comme que moom jaayagul moom ay yooyu yëpp daanaka jël jël te wax moom nan ci li li wax mooy ñu def ñu cee doole ñu doole ñu ci ñaanu ñu liggéey ci ba ci kanam kanam. alors est-ce que tey jii pare ngeen pour dugg en collaboration ak ñeneen ñi xam ne ay éleveurs la euh, ngir gën a mën a dooleel li nga xam ne moo di liggéey bi. pour pour kii ko dugal ko ci kay concours ak yooyu. waaw bii bii pas de moom dugalaguñ ko xanaa beneen beneen beneen foire nag bu ñëwee. Mhm. ñu fex fexe mu gën a préparé ko jëm ko dugal waaye fi ne nii moom wax dëgg dañuy duñ ko bëgg a xaar la fi wàcceegu moom moo seen maal moo wàcce kële tëdd ne. kële tëdd waaw kooku nga am na ku nekk kër ga quoi amagul ak am na bu waaw bu jigéen waaw leer nañ kii de moom koo gis moom ah, xam naa ni duudu ak ah, kuy kuy mat ko yëngi hmm. yow mii nii sax ah xëy na peut-être liñ koy jox bu ñu la ko joxee xëy na di nga dem ba toll ni moom man mii am naa ci yaakaar bu baax a baax acca la mooy la mooy la mooy famille yi nga xam ni tey jii moom moo nekk ci ci ci bergerie bi bergerie bi doom bidi bu fàqa ngi fi mhm. doom doom Picasso ngi fi Picasso mel mi sëtu waaw doomu Picasso mi ngi fi waaw. yaay ji doomu xariñ doomu xariñ la. ñoom ngeen leen di boole. waaw moom la ñoom moo leen ko boole moom moo leen ko boole. boo boo jógee wax ma ci jabar yi. soo bëggee dégg dëgg xar mi bi ñu koy recruter ay jabaroo tax di ko dem recruter parce que xam ne fu mu toll nii fa ñu recruter benn maal boo xamante ni dafay war a war ñëw def décharge yoo xamante ni day leeral élevage parce que xar mi bi ñu koy jënd élevage a tax ñu jënd ko hmm. pour ñëpp gis seen bopp moo tax ñu dem jëndi ko mais nak yalla def na jënd nañ ko ci jamm jàmm ngi commencé wàccee wàcce jugé yo xamante ko gis tek seen bët bëgg ko kon xamna kon mok euh, ay jabaram mom jabaram yan mel nan lañ mel ba tay waaw bëggoon outa xar xar bu mel ni ngir boole tam waaw parce que xar mi so xol euh, macha allah am na hauteur am na wet kon bok ay jabaram luñu luñu yor rek mom day confirmer day confirmer lool non ñu continuer liggéey bi continuer da gis ngeen ba ngeen ko indé mom am ngeen satisfaction bu doy waaw parce que biñ ko jëndé andiko ko liggéey tax ñu jënd ko andiko parce que wàcce na fi loo xamante ni ñun leer na ni suñ ko téyee dina ko mën loolu mooy liggéey élevage. ah ngeen ko jox. ah ko dara lu dul ñuy jox xar yi. ñun duñ ñun duñ chargé dara xar. Ah, kon nan ngeen koy joxee kon loolu laajte. nga ni nan ngeen ah, koy joxee. Ah, comme ni nit ñi di lekkee comme ni ngay añee réer ndékki rek. ah mais ku nekk sekk moom xëy fu mu bokk la non fu mu bokk la. waaw Saalum Saalum gu mu bokk la. waaw looloo Saalum Saalum gu mu bokk la. alors mi ngi daal aha waaw ko waxaale ñun duñ liggéey euh, laaj laaj la buy dugg voilà parce que après dañ koy dañ koy xam naa dañ koy soxla ci élément voilà alors ñu nekk ba léegi rek ci fi nga xam ne moom moo di bergerie sëñ Idali Mbacké mhm. tey jii ngeen nekk euh, ci ci élevage muy am lu bëri lu euh, euh, joxe wala da produire ngir joxe wala da ngeen jël ngir ngir téyewaat ko xam nga xam nga soo demee ba recruter mal indi ko da bëgg élevage Sénégal yokk parce que nekk lu mu lu ne nga téye ko su ko demee te ngañ la parce que loo xamante ne xamante ñëpp ko bokk kon dañ koy séddale parce que moom mii ni ni nii dañ ñu jox kon tay su su su judee su juree ñu téé ko boobaa élevage Sénégal du yox kon ça veut dire que tay su ju wàccee c'est préfère nit ñoo bëgg ko ñu jox ko ko waaw mais du lepp lañ mëna joxé nak nag am na loo xamante dañ koy téé parce que lolu dañu xam li lutax ñukoy téé parce que dañu xam fu mu ñu yob ëllëg moo tax ñu koy voilà alors yéen a ngi doog ñëw ci foire wala yàgg ngeen ci ñëw. non foire bi depuis bi mu sa sooba léegi ñu ngi ñëw parce que moom euh, grand bi moom. bokkoon na ci foire bii nii. ci dixième édition wu ren. waaw ba mu a ngi ñëw. ba léegi mu ngi ñëw. waaw ana ana bu ne ak ni ngay ñëwee. Uh-huh. nekkul ni da teg benn sujet chaque jour nga indi ko parce que kii xam naa ne am na yeneen ñoo xamante ni foire bii ñëw incha allahu rabbi moom mun naa bañ a ñëw mu yónnee ay doomam. yeneen yu mel yu mel ne moom ak ñee génn. waaw parce que doomam a ngi ne te leer na ni soo xoolee doom ji xool ko xam ne dina mën doom ji dina ko mën. waaw waaw joxe ngi nekkee croisement Saly Mbour croisement exactement exactement si rond point Il faut que vous croisement alors voilà mi donc ana li nga xam ne ngay euh, tëjee li nga xam vous mooy de ki nga euh, Mansa Moussa man sa Moussa dama xanaa di ñaan ngeen doole ñu see ñaanal rek liggéey bi mën cee liggéey mu jëm ci kanam di leen jaajëfal baax a baax a baax a baax a baax di wax leen liggéey bi am na solo baax a baax rafet na lool ñu ngi leen di jaajëfal di leen rafetal taxawaay bi voilà mbokk yéen a gisoon ñu ngi woon fii ci fi nga xam ne moom moo di euh, bergerie Serigne Idaly Mbacké alors gis ngeen xar wi mat na li mu doon te wuyoo na bu baax a baax a turam nee nañ xar bu wuyeewul turam rek ba yeboo ñu daat koy tekk daat koy euh, tuddee leneen alors kii moom wuyoo na turam bu baax moom moo di euh, man sa Moussa fas yéene jur lu am solo ba mel ni moom ñu leen di jaajëfal bu baax fi nga xam ne moom moo di euh, bergerie euh, sëñ Idaly Mbacke contact yaa ngoo ko jël leen ko contacté leen.